allez-y Maodo donc euh, xam nga moom. oui Moustapha Diakhaté il faut se poser question moom il a posé dafa am loo xamante ni. Mhm. nee na son objectif c' est de se pour que cent ans yi di ñëw. Mhm. benn jigéen du jur ku mel ni Ousmane Sonko. mooy li ma wax sànq. léegi nañu laaj jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk senegal mhm. soo tegoon fii Moustapha Diakhaté teg fii Ousmane Sonko ne jigéen ñi tànn leen ci kenn ko leen di jur mun naa la wax ne quatre vingt dix pour cent jigéen ñi. Ousmane Sonko la ñuy jur. wala 99 non non déedéet pour cent jigéen ñi Ousmane Sonko la ñuy jur kenn ki mhm. day bañ a jur kenn mhm. <laughs> waaye du jur Moustapha Diakhaté xam tamit parce que dafa saaga. oui dafa saaga mais c'est ça Moustapha Diakhaté dama la waxoon ne. Mhm. c'est que c'est un lanceur de sonde. ma defal beneen remarque sax dama la jox fàtte jox troisième remarque bi. mooy mais retrait licence Walfadjri Walfadjri Moustapha Diakhaté moo ko njëkk a brandir est-ce que yéen a ngi fàttaliku. Moustapha Diakhaté moo njëkk ne Walf dañoo war a retirer seen seen su fekkoon sa réalisateur bi am na élément boobu noonu wa Moustapha Diakhaté le retrait de la licence de Walfadjri Moustapha Diakhaté moom. kon boo ko amee rek nga xoolal ma ko. parce que waxu dof yooyu. yow yaa jàpp ne waxu mais Moustapha Diakhaté mhm. ou bien il a été envoyé mais c' est boo xam ne waxu dof yi bu koy njëkk a wax. ñëppay jàpp ne ay dof waxu dof la. mais maxu est-ce que mën nañu jàpp ne dafa maîtriser maxu dafa maîtriser président Macky Sall. ku xam Macky la euh, jàpp foofu kese. li tax li tax loolu mooy. bu ñuy xool li mu yëkkati ci ay kàddu yëpp ah il faut que tam ñu ñeme laal dëgg bi. bu ñuy xool li mu yëkkati ci ay kàddu bu keneen moo koy yëkkati heure bi jàpp nañ dugal ci kaso bi. te Moustapha Diakhaté kenn jàppagu ko kenn kiiwagu ko. ko xaritu marem la xaritu marem Macky da Moustapha Diakhaté dafa am lu lu am solo lu mës a wax ci Macky. dañ ko laaj ne ko xanaa xam Moustapha Diakhaté. Mhm. APR ba mu nekk kenn gënu fukk kenn gënu ko fa xam Macky ni mu xamee Macky. Mhm. waakaar ne à part de ñoom ñoom moo leen gën a xam Macky. nee na man bu ma doon football man ak Macky. Mhm. man ak Macky Sall ñuy football. bu ma xoolee damay jàpp ne du ma paas mu ne c'est parce que c'est quelqu'un boo xamante ni li waa ji di wax bàyyil pexe. ci ay pexe la nekk. Hmm. nee na benn benn nee na Macky Sall hmm. ak ñu ne bu ñu ko question. Hmm. au cours d'une interview buñ suñ lay wax différence Macky Sall ak Abdoulaye Wade looy wax mu ne ah Macky Sall ak Abdoulaye Wade xam la mooy seen différence. nee na Abdoulaye Wade bu tëree nit na da koy rey bu subaa laa koy rey. nga ñëw di ko ñaan njekk nee na mën na la ne bu la nee suba du ma ko rey jàppal ne bu subaa boo ñëwee di nga fa fekk waa ji ñu ne ko mooy Macky mu ne Macky bu la nee. boo ko ñaanee mu xam ne yow bëggoo mu rey ko naa laan kii du ko rey demal nga ñibbi. nee na boo ñëwee. fekk na taxali naa boppam baat bi bu yàgg. d'accord koo xam mag d'accord ñu taxaw ci point boobu sëñ Fallou mu mel ni élément bi am na nga nga baaxee ñu ko rek ñu dellu si waat. président ça explique euh, loolu. non non réew mu réew mu dem la aussi couper signal lu mën a nekk la. Mhm. par contre ki couper signal bi jàpp na ne waru ko couper. Mhm. parce que couper signal mi ci code de la presse bi. le sous-préfet bi nga xam ne foofu la Walfadjri nekk am ah, mën naa couper Walfadjri préfet Dakar mën naa fa Walfadjri gouverneur mën na ko couper mais mais nag ki ndey mbali ji dëgg-dëgg c'est le CNRA. Mm -hmm. je que le ministre aurait dû saisir le CNRA mu jël procédure normale yi. waxuma nag ñu couper signal Walfadjri mais Walfadjri dañoo war a retirer licence bi. définitivement. ah définitivement ils plus du journalisme. loolu loolu loolu c'est grave. et li ñuy def ko gën a garaaw xam nga Walfadjri. mais xam nga man Walfadjri. presque la ñuy bu Walfadjri bu bi du problème. Mhm. mais même opposition bi dañ cee tànn kenn rek ànd ak moom. ku àndut kooku ñu ne doo opposant yow yaay opposition de l'opposition mais c'est quoi ça c'est ça c'est du n'importe quoi ils ne sont plus dans le donc donc Mokhou comme ni ñu koy waxee ah preuve à l'appui wax nga ko sànq. Euh, vidéo baa ngi noonu ñëpp gisandoo nañ ko te liñ ci liñ ñu gën a remarqué ci ay wax moom buy wax day wax ak benn fugg maanaam benn day waxee xol day mel ni comme si ku mën a ku fanaanoo mer. bu doon defee bi muy wax lii. Mhm. Euh, coupure signal la woon. oui coupure signal bu njëkk moom de la licence de Walfadjri. et effectivement bi mu waxee loolu ñu gën a dañu yaakaaroon dafa dof dama ne la. Mhm. ku jàpp ne moom li muy wax ne il parle dans le vide c' est quelqu'un boo xamante ni pour man. xaw ma dafa xam i bay wax xaw ma dañ ko wax loo mais c' est quelqu'un boo xam ne ku jàpp ne waxi daf lay wax. Mhm. waxi waxi dof de naar bu ndaw la nag. lu mu wax rek am na fu mu ko déggee. ci ma ba la ko déggee. baax na d' accord alors ma dellu si waat Lamine par rapport ak euh, Moustapha Diakhaté ba tey bu ñu xoolee li fi xew euh, mars deux mille vingt et un ak juin deux mille vingt trois tey ci biir ay waxam nee na bu ñu bàyyee Ousmane Sonko par exemple. ñi fi dee force de défense et de sécurité yi fi dee euh, population bi ñu ci dee mu mel ni ci au moment où tey mën nañu ne justice euh, tranché gul parce que bu ñu àtte woon bu ñu supposé nit ki ne dafa kii cela veut dire que amaguñu confirmation que ci yaa def wala defoo alors enquêtes yi ñu ngi doon dem mais ba fii tey situé guñu responsabilité ngir ñu mën a xam les coupables. mu mel ni moom peut sax dafa jiitu justice ba gën a maîtriser dossier bi parce que ni muy waxee dafa mel ni tey lépp la jël chargé ko ci kaw Ousmane Sonko maanaam ku dee Sénégal rek Ousmane Sonko moo ko rey mais nekkul peut loo xam ne fitna la tey euh, ci yoon foofu lan la ci yoon wax. oh parce que jur moom moom boo xoolee muy sur si sa logique. Mm-hmm. di xool lépp loo xam ne ni mun na yàqu deru le président Ousmane Sonko rek mboq ko. Mm-hmm. mais soo ko xoolee euh, juridiquement li c'est des accusations graves yoo xam ne ko porté sur la personne de euh, le président Ousmane Sonko mm-hmm. parce que daf ko accusé mm-hmm. de criminel parce que bu dee dafa jël ne ñi dee ci mm-hmm. manifestation moom moo ko def te ñu nekk ci dëkk dëkku dëkku droit parce que Sénégal c'est un c'est un de droit ñu gëm ne dañ nekk ci récité publique am ay cours et tribunaux yoo xam ne ñoom ñu am compétence connaître de tous ces euh, toutes ces infractions léegi ñooñu ah au delà de ñoom am na assemblée boo xam ne amoon nañ benn commission d' enquête parlementaire bu ñu initié woon ci loolu. Mhm. mais jusqu' à présent on n' a pas brandir mhm. les les rapports. Mhm. de ce de cette commission d' enquête. parce que institution yi loolu la ñu jëriñ ci réew mi. su nekkee ne am na lu xew loo xam ne ñëpp dañ ko ñaawul. mais nañ situer le responsabilités su ñu xamee les les auteurs. de ces infractions ñu ñu ñu ñu place la sur les responsabilités. qu'ils doivent tomber euh, le coup de la loi. mais bu nekkee dañuy déglu un un un quelqu'un comme Moustapha koo xam ne bon ma dama jàpp ne mérité wul sax ñuy def trop de temps de d'antenne ci ñoom mhm. ak période bi ñu toll nii nga xam ne mhm. temps dafa cher temps d'antenne dafa cher mhm. parce que l'objectif pour Sénégalais fu ñu xool seen bopp mooy ñu dem ci nu ñuy organiser ay élections euh, libre transparent et paisible et je vais insister sur euh, l'expression paisible parce que boo xoolee euh, ak lu ñu mënta xaw le président Macky Sall quel que soit le jeu clair obscur qu'il est de jouer mu ngi wone en tout cas bëgg na jàmm parce que bu ne nangu na après bu ñu jëlee abrogation décret bi comme que le code électoral nangu na décision le du conseil constitutionnel waxaat ne il tend la main à la classe politique pour ñu dem ci table de négociation di dialogue mais donc képp kuy waxati foofu nga war a waxee ak moom mais il n'a il n'a pas compris peut-être la posture du président Ousmane Sonko mais président Ousmane Sonko demande demande absolument rien moom déggoo fenn pour nga parce que parti boo xam ne. Mhm. dañ ko dissoudre. Mhm. mais malgré ça ñoom ngi communiqué. Mhm. mais amul benn yoon bu ñu communiqué wax ne ñoom ñoo ñu laajte à ce que. ñu defal leen am ni amnistie ñoom dañu woote dialogue. mais le président moom moo moom moo moom bëgg loolu. su nekkee dafa déclarer guerre na déclarer euh, la guerre au président Macky Sall. parce que moom mooy woote dialogue. moom mooy euh, fexe ñu ngi. amee une porte de sortie. te képp ku nekk ni mbokkam nag. i copie yi Moussa Diakhaté waroo wax. Macky lu koy dugal ci ci ci pax parce dafa war a génn avec la grande porte parce que mérité na loolu aussi ak lu ñu ko mën di reprocher président de la République à deux fois de reprise mu nekk euh, premier mandat deuxième mandat donc kooku si génn ñi ko jege woon bu nekk bëgg nañ ko ba léegi waruñ ko isolé waruñ ko sori waruñ ko bàyyi pour mhm. kese mhm. dañ dañ ko dañ ko war a jege mhm. waxoo naka lay mën a def ba tendre la main parce que le président Ousmane Sonko noonam la. Mhm. ñoom ñoo koy nax ñoom ñooy noonam mais c'est pas le président Ousmane Sonko. parce que président Ousmane Sonko wax na ko toujours. Mhm. amul benn problème personnel avec mhm. parce que Sénégal bu soxlawee. ak quel que soit son radicalisme. ñi mu nekkal. nga xam ne la bokkal kuréel muy bokk ñoom parti bokk ñoom conviction. mais consul laaj leen. parce que c'est une question qui engage toute la République. loolu amoon na ci jamono Covid 19 bi mais qu'est-ce que ça li leen wuutale ak seen ñàkk euh, déggoo. demoon na wuy jiw. léegi li président Moussa Moussa Dia fi ñu wax. Mhm. foofu la war a waxee luy apaiser mais warul wax luy invectiver. d'accord parce que loolu du ko grandir. Mhm. te du ci am benn résultat du ci am benn ndam. d'accord day yàq deram kese. Mhm. mais c'est c'est peine perdue. alors Makhou ci ci point boobu sax la ñuy jeexale ci kaw Moustapha Diakhaté laataa ñëw ci deuxième point parce que day am solo également ñu indi ci ay éclaircissement xam nga boo xoolee tey euh, dafa am ñuy bàyyee xel DKR rawatina suñu yaay yi nga xam ne euh, xëy na li ñuy suivre média bëriwul donc tey ku ci jot vidéo bi nga xam ne daanaka wër na mu dégg ay waxu Moustapha Diakhaté day am solo également ñu indi ci benn benn temps bu ndaw boo xam ne dañuy mën a développer ngir ñooñu également ñu mën a xam ay waxu Moustapha Diakhaté fan la ko teg parce que tey ki ñàkk doomam 2021 wala 2023 toog toog dégg Moustapha Diakhaté ne Ousmane Sonko moo rey lu ñu fi dee ñëpp su boobaa tam dina dina gën a am lu métti ci xolam kon day baax euh, aussi ñu ñu ñu apaiser xolu yaay booy mais également profito pour fàttale leen tam li nga xam ne euh, kooku yëkkati na ko fi ni ay kàddu ñu bañ ko war a mën a jàppee lu diis parce que ci am solo. général man li la li la li la li la li la Lamine wax. rek mhm. la la wax Lamine mhm. il ne mérite même pas ñu toog fi di passé man leen rek laay wax. Mhm. je pose juste. un petit résumé. oui allez-y. ñii di jigéen ñi nga xam ne dañuy déglu. Mhm. ak góor ñi nga xam ne dañuy déglu. Mhm. bu dee góor ñi seen doom Moustapha Diakhaté bu duggoon seen kër na day ñaan si jabar. Mhm. Ousmane Sonko dugg na day ñaan si jabar kan koy may. bu dee jigéen ñi Ousmane Sonko jur ku mel ni Ousmane Sonko wala jur ku Moustapha ku mel ni Moustapha Diakhaté. Euh, bu leen yéen a ngi ci commentaire yi ngeen ko ko tontu ne kat jur ku mel ni Ousmane Sonko wala jur mel ni Moustapha Diakhaté ban moo gën léegi nag gis nga lenn Moustapha Diakhaté ce qu'il fait da loolu sax Moustapha Diakhaté taxul may wax dafa am ñoo xam ne parfois dañ naan manifestation yi Ousmane Sonko moo tax ñu rey kii. wala ñoo moo appel manifester surtout. xam nga la lay dugal. Mm-hmm. loolu c' une analyse vraiment biaisée une analyse préscolaire mm-hmm. de la situation. xam nga lan moo fa am. gis nga tu provoques une une incendie. Mm-hmm. yow. y a le feu. tu provoques tu mets le feu. yow au lieu que yow yow euh, y a un incendie au lieu que nga nga. nga ne kan moo ko taal wala lan moo ko taal déedéet xam nga lan ngay wax ci accuse l'allumette pour yow allumette bi moo ko taal alors que allumette bi dañ ko taal mm-hmm. allumette bi dañ ko taal quoi mm-hmm. yaa quand yaa un bi